asalaamaaleykum mbokk yi ñu topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee xam sa waay euh, mooy Mame Fatou Kébé ma ci ànd ak a xam tey kan mooy seen waay euh, kenn di ko présenté moo ci njàngum xasida mi euh, mu ciy def lu am solo moom la ñu àndal tey war a sekk ak moom waxtaan yu yaatu waaye waxtaan yi tamit dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo askan koy topp ci point com ñu soog a dugg suñu waxtaan Serigne Mahmadane maa ngi lay nuyu ok soxna Mame Fatou ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di jiital ci siyaar bi saahibul fadila sëriñ Muntaxa Mbàkke ñoo ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te weer ak jabarug sëñ Tuubaa gépp ak sëñ Jëmb Fall ak jabarug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di leen ziar bu baax yéen ñëpp personnel bi nekk fii di liggéey ci 24 at ci ngeen def liggéey bu solo dëgg yàlla ñëpp askan yëpp di ko rafetlu ñoo ngi leen ciy ziar bu baax te di leen ci ñaanal feex ak yokk barkib sëñ Tuubaa Ah, macha allah sëriñ Mahamadan Tall dégg ngeen ko ni mu daal di nuyu ak ñi xam se ne ñoo koy topp ci 24actu sëriñ Mahamadan comme que jotaay bi tamit dañ koo baaxoo di ko ibbi akum njàngum xasida ñu daal di bëgg tamit nga daal ñu yëkkatil xasida yi pare ñu soog a dugg suñu waxtaan aousu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi rahmani arrahim wa sallallahu ala wa alihi wa wa sallama taslima لم يبدو مثل المستوى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي لم يبدو مثل المستوى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي مدلنا الإسلام والكفر ما وبنصيرة لكل سما يقود بسائر والباطن من أتاه لله في كل سمن خدمة عالل يا بعصبات والاستقامة وصفوا وابات لبانا كون المستوى ريسا لكل من خد فدلا روسا subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin ah allah ngeen dégg ko noonu sëriñ Mahmadane Tall dégg ngeen ko ni mu daal di ubbee jotaay bi ci xasida yu am solo yooyu sëñ Mahmadane wax sëñ Mahmadane Tall kan mooy sëñ Mahmadane. ok sunu maam Faty Mahmadane Tall daal taalibe sëñ Tuubaa ginnaaw ba mu doonee ab jullit di taalibeeb sëñ Tuubaa jokk eh, ci sëriñ Mbàkke Madina eh, bokk ci askan wu baax eh, ñu ñoo xamante ni ràññee nañ fi leen fii lool ci dëkk bi askanu ñooñu Tuubaa waaw Mahamadan Taal daal taalibe la boo xam ne buy liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasaay itam ñi rek mm-hmm. ah, macha allah loolu daat nay tënku dégg ngeen ko Mahmadane Tall taalibe sëñ Tuubaa la buy liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi eh, sëñ Mahmadane ndax boo ñu doon wax tamit eh, kañ nga dugg ci njàng mi eh, ci ban année nga daal dugg ci njàng waaw man année bi may dugg ci njàng mi 93 moom laa fàttali 92 93 waaw fekk na ma nekk ci njàng mi mm-hmm. ndax mën ñoo xam tamit naka nga daal di def ba daal ciy dugg waaw ñun bi ñu jógee daara ji rek yàlla dañoo xiirtal ci xasaayit ñu bëgg xaside yi Sëñ Tuubaa yi bi ñu koy bëgg it ñu ngi ko bëgg ci ñu maanaam fekk fekk nañ fi suñu jëwriñ suñu xarit ngi muy jàng teg ko ci njàng mu neex moo xam ne bi ñu agsee moom lañ fi fekk comme dëkk bi Touba day dëkk boo xam ne moom euh, animation daanaka xasaay yi rek nga fi mën a déglu boo ñëwee la nga la nga fa fekk ci dëkk bi rek nga na ngay mën a foye Euh, rawatina bu dee xaside bi ñu ñëwee rek fekk ci fi xaside yi fekk si sëñ Xaadim Géey mu di ko njàng njàng mu am solo ñu di ko ànd ak moom moo ñu ca dugal euh, kon sëñ sëñ Mahmadane kon suñu laaj bi la doon bëgg laaj boo ñu ki nga àndal kan nga àndal hmm? ñu doon wax kon xasida yi bi nga ci duggee kan nga ci jot doon topp kon waaw man euh, bi ma ci duggee maa ngi ciy njëkk ànd ak ku ñuy wax sëñ Xaadim Fall mu ngi dëkk Daaru Xudoos hmm. jamono jooju yàgg na nag ndax boobu moom xaay sëñ Xaadim Géey jamono yooyu daanaka mën naa ni euh, sëñ Xaadim Fall moom bokk na ci ñi gënoon jorooy euh, laay Seck gën koo dégg ci dëkk bi mm-hmm. moom laa njëkk di àndal ci xasida yi ni ma commencé di ànd ak sëñ Xaadim Guèye waaw mm-hmm. euh, kon sëñ Xaadim Guèye moom nga mujjee àndal waaw bi ma jógee ci sëñ Xaadim Guèye jaar naa ci sëñ Xaadim Kebe mm-hmm. moom itam ànd nañ lu yàgg moom itam ndax dañoo bokk sëñ Bàkki Madina mu daan def su amee jàng wax ma ko noonu mm, laa dem ba adopté di ànd ak moom lu yàgg sax at wax dëgg yàlla ànd nañ ko moom itam Euh, kon ci ak leeral boo ñu doon indil àndi nga ak euh, sëriñ Xaadim Gueye bi nga euh, kan nga ci mujj a topp waaw sëñ Xaadim Kebe sëñ Xaadim Kebe moom nga mujj a topp ndax mën nañoo xam tamit njàng mi tamit bi nga ci nekkee ci ban air koo daan jël airam noonu doon ko topp waaw moom sëñ Xaadim Gueye laa njëkk topp ab airam mm. waaw moom laa njëkk a toppandoo mënoon ko lool it nag ci dëkk bi li may wax it defe naa ne bu ma ko waxee képp ku seetaan xam nañ xam nañ li ma wax ndax bari na jàngkat yooyu gis fii ci dëkk bi ñu ndaw ñoo xam ne euh, ràññe woon nañ ma lool ci nuru nu gu ma nuru woon suñu xarit gii ba euh, bokk naa ci tamit ci ñi nga xamante ni ñi daan njëkk ànd ak moom ci kuréel bi nga xamante nii moo day ñoom sëñ ndax daanaa ànd ak sëñ xariñ kebe ñun ñëpp di dem di aw ji xaay sëñ xariñ gi mhm. macha allah bëgg nañoo xam tamit ba tey eh, eeru xaadim gi boobu moom nga continuer di ko wala sëñ Mahamadan dafa jékki dem ba jël eeru boppam daal waaw danaa koy danaa jàng eeru sëñ xariñ gi dinaay jàng sama eeru bopp waaw yooyu yëpp dinaa koy jàng dinaay jàng daaju mag ñi tamit mhm. daaju mag lu ci mel ni daal bi xayri sëy sëñ bi xayri sëy sëñ Saliou ñun ñëpp naa ngi jàng seen daaj Baye Sa Baye Saliou Thiam ñun ñëpp waaw. Mm-hmm. sëñ Mahmadane ba tey bëgg na maa dellusiwaat euh, tamit euh, ci kañ nga daal di njëkk ban ane nga daal di njëkk a fanaane guddi ci baas daal. waaw xam naa ci li may fàttaliku de 95. Euh, maa ngi njëkk a fanaan Bitngel. Mm-hmm. Bitngel dëkk bu ñuy wax Bitngel dëkk sëñ Seexu Naaloo moom sëñ ma Binta mm-hmm. la. moom mi ngi côté. Mbàkke côté Saalum yi la waaw foofu laa njëkk fanaane guddi waaw wax dëgg yàlla. waaw mu mel na tamit bëgg na ma xam nit ki looy def bu nekk euh, te euh, miinoo ko bu nekk boo ko njëkkee def xanaa dina la andil ay jafe-jafe ba nga ko njëkkee fanaane lan na daal di def ci yow. waaw mbégte mbégte mu am solo ndax booba fekk na may ànd ak suñu xarit gi euh, tàmmalim njàng xam nga ndoortali ndeysaan ngay bëgg di nga bëgg ah, fanaane guddi nga bëgg di jàng di am ay tànt guddi gi ma njëkk gañ ma njëkkee jox programme boobu mbégte laa am mu rëy rëy ba ni ma duggee ji di tànt bi di jàng ba bët set euh, doyulu ma ndax kontaante waaw waaye tamit est-ce que di euh, aw euh, ba xëy benn bis ñu jox la baas nga war ko fanaane ci guddi gi nga ko njëkkee def est-ce que du am ci yéen benn jafe-jafe walla déedéet du ko am ndax xam nga lu yàgg ci njaw rek di njaw mm. boo yàggee topp nit mu yàgg yàgg a sonn te aw aw moo gën a metti jàng boo xoolee tey toog ci tànt aw ku mel ni suñu xarit bi nga xam ne jamono jooja tournée bi yaatu na bis bu set da ngay jàng bis bu set amul nopplu da ngay jógee sa kër jël sa saak dem continuer ci jàngee boo ne boo ñëwee da ngay defaraat sa yeneen yére demaat loolu da ngay da koy tàmm ba fanaane guddi gi nag dana dana première ba xawoon naat am difficulté ndax booba xëy na tàmm gi amagul xawoon naa am tuuti kii waaye nag loo taam loo yàgg def boo demee ba ju digg rek euh, pour nga jàll la yomb ah, waaw sëñ Mahamadan macha allah dégg ngeen ko loolu daal tey am solo waaye tamit bëgg nañoo dikk tamit si si sëñ Mahamadan euh, cassette enregistrement yi nga xam si ne jànkat yi dañ koy faral di def bëgg nañoo xam ñaata cassette yu enregistrement yoo xam si ne jël nga koo def waaw man de xam naa ay cassette enregistrement am na yu am na yu ma ci def yu bari nag yoo xam ne waaye bi ci gën a xam ne mooy mooy mooy moo gënoon a si mooy maam jaara bi soxna jaara bi ma waaw wolofal maam jaara boobu mm. naa waroon ko dégg sax mm. boobu daal moom moom laa jotoon a def ci cassette bi gën a siiw daal mm. waaw ah, boobu ndax mën nañoo xam ba xam ah, yow yaa ko bind wala dañ la ko bindal waaw moom ku ñu wax sëñ moo du fay dakaar mm-hmm. moom moo ko bind sëñ Modou fay nag moom ku ràññeeku la ci wàllu taalif euh, taalif yi ngay dégg yu bari yi nga daan dégg euh, tey ma bàkk la yaaram bi yàgg nga daan magi Cernoog ma sàmba wa Sidi Gaawaan moo defoon boobu defe naa ni am na ku ko njëkk a jàng koo xam ne du way sax du jàngkat waaw ñooñu la njëkk jox taalif moom kooku ku yàgg way la sëñ xaayiñ bari na taalif yooyu booy dégg mu di ko jàng rek suñ Modou Faye ko bind waaw suñ Modou Faye moom moo ma jox taalif boobu mag ba du Thiam nii sama rakk ji nga ni moom laa àndal mhm. ñoo ngi koy nuyu mhm. profité nuyu ko di ko ñaanal ñëw na ak tàbb si na ci jotaay bi mhm. mooy sama xarit di sama rakk di sama lépp wax dëgg yàlla euh, di ki gën a sës ci man nga xam ne fu may fu may jànge ma boo gisee moom laay yëkkati micro jox ko moom moomu xam na ci dara taalif bi bi ma ko sëñ bi di jox ma sëñ xaalim kebe dañ fa daje mu yëkkati war fal bi jox jox ma ko jox ko sëñ xaalim kebe waa xam naa dañ koo xay na biñ ko jàngandoo nag yàggul waaye wax dëgg yàlla am na solo. sëñ Mahmadane ba tey bëgg nañoo dikkaat ci ñi nga xam se ne tamit eh, ñoo lay jot di topp di la aw ndax mën nañoo dikkaatal eh, ci ñi xam se ne xam nga ne boo doon xool tey ñoo gën a nuru tey sëñ Mahmadane Tall tey. waaw ah, bokk na ci moom ñi ma tudd léegi Baye Abdou Thiam. waaw moom fi ne bu tee bu teewoon micro di jàng comme ni may jàngee. macha allah mën na lool daaj yi may jàng. waaw la ci lool sax allah. Mm-hmm. waaw sëñ Mamadane ba tey bëgg na ñëw dikkaat ci tournée yi nga xam se ne yéen jànkat yi da ngeen koy faral di def ndax mën nañoo xam ci maanaam muy interne bi wala international mën nañoo xam ci yan région moo ëpp ci biir bari na ci ci wax dëgg yàlla ci ci ci ci ci biir réew mi bari fu ma ci jàngi fi noonu tournée moom amatul waaw bi muy am moom ñi ngi ñi ngi jàngi fu ne fi ne moom toog toogaam tournée waaw toogaam macha allah bi ñu daan jàngee uh-huh. wax dëgg yàlla daan nañ jàng fu bari ci réew mi uh-huh. waaw fu bari. waaw mu mel ne lii ay diggante rek bu ñu ko dee laaj maanaam tournée yi nga xam se ne dangeen koy def uh, waaye mën nañoo xam tamit bu dee ci bitim réew uh, mën nañoo xam ci yan région moo ëpp ci ngay tourné wala demoo. bitim réew fi moom. fi wax dëgg yàlla. lan ngeen aar fa xanaa Afrique xanaa Gambie laa fi demaguñ. Uh-huh. Uh, ba tey ndax bëgg nañoo xam dafa mel ne soppee tamit ñi nekk fii ñu nga foofu wala. waaw wax dëgg yàlla bari lool sax macha allah toujours ñu ngi may laaj samay kii yaakaar naa ne lii ñuy def nii. bu mhm. ñoom buñ jotee danañ sant lool. Mhm. ndax xam naa ni kon 24 actu yi dana fa yaatu. Mhm. ndax ñoom ñu ko ñu yittewoo samay soxla lañ leer na Baye Abdou moom yi. bari na samay mbokk yu ne bitim réew. fu ñu toll ñu ngi laajte samay son leneen si am na yu ñu dugal yu ñu dugal ci internet bi léeg-léeg eh, am yu am ci yu ñu ciy jot ñoom wax dëgg yàlla waaw. ndax tamit yaa ngi toppatoo li nga xamante ne moo di visa yi comme ni ko kii defee ngir bëgg àgg si soppite soppe yi ndax xam naa ni ngeen di yëkkatee xas day fii bëgg nañ tamit ngi soxla ko foofee ngeen mën a toog ñëpp di di leen ko yëkkatil foofa daal waaw wax dëgg am nañ ci yéene am nañ ci yéene ñi ñi ngi koy ñu ngi koy topp ndànk-ndànk xam nga mbir moom xëylu ndaal xëylu sotti waaye loo gis rek xëy na àpp lay laaj waaye nag teewul danañ ci dox ay jéego tey ñu ngi ci daan jokkook ñoo xam ne toujours di di leen ko wax tamit ndax ndax jànkatu xasida moom euh, daanaka mën naa ni euh, li ci ëpp ci ak deemu Europe euh, mbokki taalibe yi ak ñi ko sëñ Tuubaa booleel ñoom ñoo koy jàppale rek ñu ci bari parce que ñun boo xoolee dafa mel ni wàllu état wala réew mi ab jànkatoor fee jógee tukki mu jaar ci état wala dara ñu comme ni ñu ni ñu reconnaître musiciens yi wala dara kii guñ xam jàppee guñ ambassade jàppee guñ benn jàngkatu si ni bu ñëwee dañ ko war a mën a bi may bi sax maanaam ay katam loolu moom amagut xamul lu ko waral nag xamul lu ko waral waaw mu mel ne loolu kon seen jafe-jafe la lan nga ci daal di wax ci ñi xam se ne ñoo leen ci war a jàppale waaw waaw da bu ñu jàppale dina baax ndax suñu sañoon liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi dana yaatu tasaaroo xasaayit sëñ Tuubaa yi dafa war a yaatu sëñ Tuubaa moo waxoon ne antal karimu anal xadimu dëhëran udimi fii fii ka sanaa yi kon kon kon tàggam yi day wéye taggam wii muy tagg rasulillahi day wéy ba diirub jamono kon war naa yaatu te te te eh, sax googu mu waxoon mooy lii ñuy def rek muy jàngkat yi ñoo koy yaatal di yëkkati xasida yi di ko di ko yëkkati ci Europe ak Afrique fépp waaw am nañ yéene nag dem fépp wax dëgg yàlla macha allah ngeen dégg ko noonu am nañ yéene dem fépp Serigne Mahamadan Tall waaye Serigne Mahamadan bëgg nañoo dikkaat ci njàng mi ak niveau bi fi nga xamante ne fi la daal di toll ndax gis nañ ne ñu ci bëri léegi jànkat yi comme ni ma ko waxoon léegi bari nañ macha allah ay yoo xam seen tamit ñoo ngi dox di ñëw ndax yéen ñi nga xam se ne en que jànkat yu mag yéen ngeen a ngi leen di jàppale pour ñu mën a egsi tey fi ngeen agsi waaw loolu moom moom moom yaakaar naa am na ci firnde ndax ndax euh, am na daayira bu ñu lëkkale muy daayira Mawahibou Nafi di lëkkalee jàngkat yëpp li nga xam ne sëñ Saliou moo ko tuddee woon jàngkat yi may ñu kër ak penc mu yaatu wax dëgg yàlla fii ci Daaru Tanzil euh, daayira boobu am na lu muy liggéey ci loolu ndax suñu dajee boo xoolee ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi dañuy daal di jël xale yi gone yi nga xam ne xëy na euh, xëy na xamaguñ leen ñu di leen dugal ñuy jàng liñ ci jublu rek mooy ñu ma ñu fekk ñu fi fi fi nu ne waaw loolu rek lañ ci jublu kon liggéey boobu ñu wax dëgg yàlla toujours ñu ngi ci ñëpp nag wax dëgg yàlla ñi ñu ñi ma xam ñëpp euh, maa ngi gis ñoo ñoo ngi ñoo ngi ko yaatal dara waaw. Mm-hmm. waaw ba tey eh, ba tey bëgg na maa dikkaat tamit ci li nga xam si ne moo di jàng mi ndax yéen a ngi ciy seetlu ñoo xam si ne tamit eh, ñoo ngi ciy teg jéego di ci doxee noo xam si ne est-ce que dëppoo na xasida yi wala. Euh, waaw loolu de xëy na du ci ñàkk ndax liggéey boo gis rek mm, am na ñuy defar am na ñuy def leneen mm-hmm. waaye ci amee gënut ndax. liggéey bi du liggéeyu bone sëñ Tuubaa euh, dafa maanaam maanaam léppam njariñ la sa nafxin bila dararin moom léppam njariñ la njariñ lu ànd ak lor la kon ku ci loro yaa lor sa bopp ku ci ku ci def leneen yaa yàqal sa bopp ku ci nekkit war ngaa doon koo xam ne exemplaire nga war doon koo xam ne dañ laa maanaam war ngaa wane sa bopp war ngaa wane sa bopp man ngaa doon koo xam ne it euh, foo taxaw ñu xam ne kii jànkatu xasida la waaw kon waroo waroo mel ne noo xam ne nu bokkut ak jànkatu xasida war a mel waaw. Mhm. macha allah sëñ bëgg nañoo dikkaat tamit ci relation bi nga xam si ne euh, est-ce que sëñ Mahmadane am na ak relation yi nga xam si ne ñoo di politiciens yi wala ah, sa relation ak diggante ñi nga xam si ne ñoo di politiciens yi. politiciens yi de moom de xam naa ni taxul ma. taxul nag ñëw waaw. taxul nga am ak ñoom benn relation euh, ndax sa relation ak ñi nga xam seen tamit ñoo jànkat yi nag. Euh, waaw jànkat yi moom am nañu relation ak njabootu sëñ Tuubaa hmm. am naa ci ñoo xam ne ci njabootu sëñ yi ñoo xam ne samay wëlër lañ sama lépp lañ hmm. wax dëgg yàlla jànkati xasida yi moom maay seen sax maay seenu xarit hmm. su ma agsee su ma agsee ndaje mu mën a am bu may agsee rek ñu commencé reetaan loolu loolu loolu doy na tawfeex ndax ñoo xam ne fu ñu la gisee dañuy ree loolu rek taw feex la loolu tey noonu la ma yàlla bindee nag tamit waaw du sama ñàkk fayda su déedéet man maa bëgg nit kuy bëgg rek su ma sañoon ñëpp dañu am jàmm waaw lu ci ziare soxna su baax soxna may ñang yaatam mooy moom sëñ Mamour sëñ Mourtala sama wëllëre la sa sa sama yaay la moom bokk na ci ñi gën a ñi may gën a soññ ci xaside yi ndax ñoo ñu bu leen gisee da ngay gën a jaaju waaw Euh, macha allah euh, sëñ Mahmadane <laughs> dégg nañ ñëw daal di tonto bëgg nañu tamit mu daal ñu dikkal ci euh, lan moo la gën a naqar sa àddina loo xam si ne tey ji boo ko dee xool sax dafay daal di des ci yow. waaw sama sama àdduna di bu fekkonte ne dama ci li ma gën a naqari ndax bu fekkoon dama koy natt ci samay wajur suma sañoon. ñu mm-hmm. gunge ma ba ci kanam ndax ñoom ñaar. yàlla daal dogal ñaari ñaar fukki fan lañu rawante wax dëgg yàlla bàyyi rek samay rakk tey ñaanal nañ ma ñoom ñëpp ku ci nekk ci sama kaw nga wàcce liggéey maa leen taxawu ba ñu dem waaye loolu bokk na ci bu fekkante ni lu ñuy naqar loola waaye nag faatu kenn dëggul ndax ndax ndax dogalub suñu borom la waaye daal lu bon daal moom a gën a naqar yi ci àdduna lu bon daal moom bu ma gisee rek am naa naqar waaw saan ndeysaan dégg ngeen ko ñu koy ñaan suñu borom dolli leen ay leer fa ñu daal di tëdd eh, sëñ Mahamadan bëgg nañ tamit eh, nga daan ñuy dikkal ci lan moo la gën a neex si sa àdduna moo xam muy jataay boo xam si ne yaa ngi ko toogee tey caxasi day wala loo xam si ne yaa ngi ko dund sa àdduna eh, muy lu la neex ndax mën ngañ cee dikkaatal tamit waaw man de bokk na ci li ma gën a neex moo jotaay bu ñuy waxtaane sëñ Tuubaa man man sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa dañ ma koy bàkke sax ñi ma ñi ma xam man man um ci sawo bañ naa ko ba giñ naa ci seexul xaddim xëy suba te jooyuma ci sëñ bi yombut su ma xëyee suba dinaa damay su toog sama néeg su ma su ma durusee jàng sama waqaf wallaahi jooy yi sax dama koo boole ci sama waqaf ndax jooy ci sëñ Tuubaa farata la waaw moo tax dama ko bëgg ba euh, fu ñu koy waxtaanee daal bokk na ci li ma gën a neex ci sama <laughs> sama àdduna waaw rawatina dëkk bi di Tuubaa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 jaajëwati xaadim rasulullahi dina jaangi lay rasulullahi dina jaangi lay bégee islaamulaay soppe boroomam borom bayti laay ahmadu maam jaara jaaratullaay yàllaak yoneen alxuraan gërëm na xaliilun wa xabiibun awliyaawulaay kenn waxul lu gën a wér muriidulaay ay sëriñ tuuba ay sëriñ tuuba ay sëriñ tuuba ña koy bége ñooy da koy jinaanu laay sëriñ Tuubaa ña koy bége ñooy dëkke jinaanu laay ña koy savoy jàkkaarloog jamaalu ay sëriñ Tuubaa bindam loxoom da daa yëngal xarsu laay wax na ko ci ay bayit bi isnillahi isaatatu atasarsu laay wa sabaxat malaayikul ilaay kadaa waxat ci lu wér amiini waayi laay aboo seex Moustapha ak seex Fallu laay aboo seex Basiiroog seex Abdoulaay aboo seex Saaliwoog abo seex saaliwo xaliilulaayi abo seex basiirook seex abdulaayi abo seex saaliwo xaliilulaayi ah, macha allah dégg ngeen ko noonu euh, sëriñ Mahmadane Tall xasida yu am solo yoo xam si ne daal na koy yëkkati ci jataay bi euh, sëñ Mahmadane ndax mën nga ñëw dikkaatal ci jàngu xasida mi bu ngeen toogee ba di ko jàng ban yëg-yëg ngeen daal di àndal ndax man moom bu ma bu may tàmbali jàng rek damay teg sëriñ bi sama kanam yéeg yéegub ni xam ni daal lii mbégte la maanaam maanaam wax la yoo xam ne du waxi gone fañ ko doxalee kenn jotewu ba nga koy bindit kenn nekkul ci watam naan ko amin moom sëñ Tuubaa ku tedd kook yi daal moom rek lañ ciy gis moom lañ ciy bége moom bànneexu bi bu bu bànneex moom rek lañ ciy bànneexoo waaw loolu daal mooy mooy li nga xam ne moom mooy suñu mbégte ci xasida yi waaw buñ koy jàng. Mhm. Ah, ba tey sëñ Mahmadan tamit ah, xam naa ne sëñ émission ñi ngi ci cëppaandaw waaye xam naa du ma jeexal te du ma la ni ah, nga xamante ne moo di Covid 19 bi muy mbas mi. Mhm. naka nga ko daal di dundee mbas mi de moom mbas mi daal mbas mi daal mbas ñu rek la def ndax maanaam xam ne daal loo xam ne bi mu ñëwee ba tey dëgg yàlla jàngeetun xam nga ni dara doxatut mbas mi moom dara doxatut waaw lu daan dox rek ne taxaw na lu taxawoon toog na waaw euh, yàlla dogal it jànkatu xasida xam nga liñ naan mbas mi ndaj am ndaje lay bañ te ñun ndaje lañ bëgg waaw rassemblement lañ bëgg ñun te mbas mi rassemblement lay bañ kon kon kon dox dootu am <laughs> kon moo sax daal fi mu ne xam naa ne doon na loo xam ne daal yàlla na ko fi yàlla jële ci lu gaaw ndax bu gaawee kat du baax ndax man su ma sañoon su may ñëw 24 actu yi ah su ma ñëwee bu muy ñibbi mhm. day baax lool. ndax sama caméraman yi xam ne suma ma sañoon gaa yi sama gaa yi. Uh-huh. su ma sañoon su ma ñëwee bu ma ñibbi ku ne taarkal ndax li ngeen def lu baax la lu baax la ah. ah dégg ngeen ko dund waaye xam naa tamit euh, mu mel ne mbas mi yaa ngi wax waaye euh, président Macky Sall dafa daal di diggee li nga xam ne moo di dund war koo jox askan wi ah, ndax jàngkat yi jot nañ seen wàll. waaw ñun de sëñ Mountakha jox nañu dund ñun jàngkat yi ñun dëgg yàlla Macky Sall na am na ñu ngi ko jox waaye ñun dañ koy dégg rek. ndax jotoo sa wàll. kan Macky Sall. Ah. Macky Sall de dundam xeeñu ma sax wax dëgg sëñ Mountakha daal <laughs> jox na nu moom moom jox na nu. Ah. ñun jàngkat yi daal sëñ Mountakha jox na nu ceeb ceeb. Ah. wax dëgg yàlla waaw tuwaat kàlla ba tey maa ngi ciy xewlu. di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér Mbàkke. yàlla na fi yàgg te wér. sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te ndax kooku dañ ko war a ñaanal mu yàgg fi sëñ Muntaxa dañ koo war a siiramtal siiramtal ñu naan siiramtal daa xamal nga siiramtal siiramtal maam gone gu yor ñu jox la ab dankub cere walla tuuti gerte rek ngay bañ mu jeex ngay cof tuuti di laaj. man daan du gaañ <laughs> dégg ngeen ko noonu <laughs> ba tey eh, mooy wax daan lan ngay daal di wax ñi nga xam si ne ñooy séddale dund gi nga xam si ne président Macky Sall mi ngi koy joxe eh, te xam si ne daanaka ñëpp yitte woon nañ ko waaye surtout yéen jànkat yi nga xam si ne tamit lu bari daf cee baarewu ci mbas mi ci yéen lan ngeen leen di wax pour tey ji ñu man leen koo gën a mën a jàppale pour lu gaaw. waaw bu fekkee bu fekkee président da koo séddale loolu ni leen ngeen joxe ko mm-hmm. te ñoom ñuy ay jullit nii noonu mm-hmm. ah, dañ ko war a joxe ci yoon teg ko ci yoon rek xam nga bu ñu la séddale loo ci yoon da ko war a séddale waaye bu fekkente ne bu ñu la joxee fukki saabu nga téye juróom-ñeent yi joxe benn ba it loolu loolu ci ñu ngi koy jox métti na trop dëgg yàlla yàlla yàlla def saal seeni xol ñu mën ko joxe. waaye doy na waar de réew mi daal ngi rek alhamdulilah. nañ yaakaar sëñ Tuubaa rek. Mhm. ak sëñ Muntaxaa ñaan ko mu yàgg fi loolu te teg <laughs> ngeen ko Serigne Mouhamadane Tall <laughs> man xaw na maa lii sax man ah, lan ngay tàggoog ñi nga xam si ne lay topp ci 24actu yi fay ko. waaw maa ngi leen di ñaanal bu baax di leen soññaat bu baax ci 24actu yi ndax kat site la boo xam ne wax dëgg yàlla site bu murid yi la site site site site bu jullit la tamit site bu bi yëpp la euh, jànki rawatina jànkatu xasida yi ndax wax dëgg yàlla ku fi ñëw boo demee buñ ci bari dañ leen di laajte. kii kan la te kii kii xam sa waaye moom bokk na ci li eh, xamal nit ki ay ay ay nitam kon lu rafet ngeen def yal na yàlla defal tawféex yal na yàlla yokk leen ba mu doon ay télé ay télé barki sëñ Tuubaa yàlla ngeen raw TFM maa ko wax nag man maa ko wax yàlla na ngeen ko raw jërëjëf waaw bég nañ bu baax kontaan nañ di siyaar suñu xarit suñu Ousseynou bokk na ci ñi ma njëkk a ak yow mii yow sax yaa ma njëkk a ndax yaa ma njëkk a wax émission ak sama xarit bi eh, eh, waaw soxna soxna Astou waaw ndeysaan waaw ndeysaan uh-huh. bu baax lañ gars yi ngeen def san nañ bu baax Euh, benn famille lañ suñu Mahamadan Tall la dégg ngeen ko noonu ci xasida yi am solo yooyu nga xam si ne moom la daal di yëkkati ci jataay bi comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, ci koy daal di euh, a xamante kan mooy seen waay ngeen di ci ànd kan soxna Mame Fatou Kébé nii rek lañ koy jataay bi ni mu daal jàpp ne lépp dara daal di kiwul noonu ak ku ne xam ne tamit yittee jamono ji fi mu daal di toll moo tax tamit dañ koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam se ne tamit ñoom lañ doon àndal ci jataay bi euh, di sant sama cameraman Modou Diouf di sant tamit ñi nga xam se ne ñoo ñu doon topp ci jataay bi ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen jotaay xam sa waay euh, jaa ngeen